jërë ngeen liberté bu Ousmane Sonko bi far na mujj ci caravane de la moom jiital parti Pastef li di Ousmane Sonko la namoon mu di jóge si ci Pastef jël yoonu suuf yi ci Pastef ñibbi si Ndakaaru ci Pastef force de défense et de sécurité yi ñoo ko dogaale ci Pastef dugal ko ci seen wata ci Pastef indi ko Ndakaaru ci Pastef ne ko yël banding ca këram ga ci cité kër góor gi ca Pastef l'observateur di ñu nittali ni ko force de défense L'Enquête yéenekaay bi mi ngi xibaar ne am nañu ay xibaar yu leen xibaar ne bi bakkan rotee ca Kolda ci la kilifay réew mi jëlee dogalub dakkal caravane de la bu Ousmane Sonko bi ci la gendarmerie tegee loxo benn wata bu bokkoon ci koowaam wata boobee gendarme yi jàpp nee nañu dafa bëggoon rocceeku ci koowaa bi dem Gàmbi alkaat yi teg ko loxo ñooñ ko jàppee ci village bu naan Thiako nekk ca Koungheul ci lañ ko jàppee génne ko ci oto ba yóbbu leen Kaolack tey jii ci a procureur bi lii nañu caravane liberté bi Ousmane Sonko bëggoon def lu gàttu fan la direct news bind ne force de défense et de sécurité yi ñoo freiné Sonko journal bi tegal ñu ci ne force de défense ak ni ñuy defee ak Ousmane Sonko jàpp ko mbogo mbogo ko indi Ndakaaru ci li kenn yëgul war naa tax ñi koy jàppal tànk moom Ousmane Sonko ñu naan leen les patriotes ñu xam ne seen doole des na ci loxob état bi ñu bëgg weñ ak rapport de force bi ñu ko bëgg boori caako andi ko Dakar yóbbu ko ca këram ga ca cité kër góor gi isolé fa blocus boobee ñu ko tegal toogaanu ko mënut dem mënut dikk libération ne nañu moo jur démb fitna ca cité kër góor gi ak ci ay quartier yu nekk ci Dakar ay manifesté ci diggante ñooñu Ousmane Sonko yi ak force de défense ak sécurité yi Vox Populi nañu rapport de force bu tar la gis démb ci dëkk bi Sud Quotidien dañu xamal ci xët njëkk ne Dakar mi ngi ci nee nañu bi ñu ne dañuy dem cité kër góor gi seeti Ousmane Sonko këram yegguñu alkaati yi ñoo leen tere journal l'info nañu tere leen rekk yam ci dañu leen a dóor ay grenade lacrymogène ba ñu xool benn place le témoigné nañu buum dellu na ca booy boy ba fit naa ci ci Ndakaaru Walf Quotidien doole ci ne ay seen da kawo la ñu gis démb ci dëkk bi lise ku ne ko ak ay responsable yu ànd ak Macky Sall yu ñu siibale seeni kër dem di leen taal taal nañu kër ministre Matar Ba ba taalaale ay wata yu mu moomoon ak yu mu moomul woon ba moom Matar Ba lise ku ne nañu yi ñoo ko mujj rawale kër Abdoulatif Coulibaly yéene kaay bi ne nañu ko taalaat nañu it ay bis yu watay Dakar dem dikk sursoi nañu deret ak sawara ne woon na jasar ci dëkk bi démb watt bi ñuy dugalub néew sax bu ñu koy robi mu di corbillard bu jumaay Sacré-Cœur 3 yi corbillard boobee manifestant yi dañu koo taal sursoi nañu bu weesoo Ousmane Sonko mi ñu def livraison à domicile am na fanweeri nit ak ñeent yu ñu jàpp ca Tambacounda am fukki nit ak juróom yu ñu jàpp ca Kolda am na it ñetti nit yu bokk ci parti Pastef yu ñu jàpp ba ndax nee nañu ba ñu leen di jàpp dañoo fekk ci ñoom ñeenti jaasi ak li ñu dund ci dëkk bi mu tukkee ci fitnay politique journal l'Observateur dérapage la ko tuddee ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy xibaar yi ne jàpp nañu ñaar fukki nit ak juróom benn ci ndakaaru ci ñoom am na ci ñett ñoo xam ne nee nañu dañoo bokk ci ñi doon caxat-caxatee ak di yàqate travaux yu BRT yi le témoigné nañu bu ñu deful ndànk li xew ci dëkk bi duñu xam fan lay yam ndax jeunes yi ànd ak Macky Sall mu di waa ko gère li ñuy wax mooy jàmm jeex na yëf yi léegi dóor fayu la Moussa Sow ak i gaayam di wax ci kaay bi ne ay républicain la ñu naam waaye lu ëpp tuuru gaañi ginnaaw xeex la ñu woote dinañ leen ci fekk si ba mu doy ñoom luñ ci góobe gar ko Abdoulaye Wilane porte journaliste di ñu wax ci source waa ne Ousmane Sonko li mu war a def moo di taxaw jéggalu baalu àq képp kuy jigéen ku nekk ci réew mi mu di ay kàddu yu yéenekaay bi ne nañ mi ngi ko yëkkati ci méga meeting bu Bounama Sall secrétaire général des jeunes socialistes organisé woon ca Daara Jolof ci jamono jooju journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne jigéen ñi jàppal tànk Macky Sall di les femmes de Benno Bokk Yaakaar li ñuy sàkk ci président Macky Sall mooy mu sampaatum